bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad ibn abdullah ya himmata sayqi uxduri lana bi asal maqdari wal tuxti fi bi nasaratin tuxti lana bi zafarin mbokki téléspectateur TFM religion ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel bu baax di nuyu xulafaaw yëpp di leen ñaanal yàlla di nuyu borom kër gi Youssou Ndour di ko ñaanal yàlla ñu àndaate yéen seen émission leeral rek ñu ngi ci woon ci saari alquran yi nga xam ne yàlla leeral na ko ñu ciy leerlu rek ci saar yi ñu ngi tolloon ci surtu taaha maanaam yàlla di ci wax ak yonent bi ci aaya biñ mujjee mu ne ko bul yàkkamti maanaam bu jibril di wàccee ci yow alquran xaaral ba mu wax ba pare nga door a wax wala tax jël bil quran min qabli an yuxda ilayka wax yowu kon aaya boobu lañ waqu rabbi sidni alman aaya boobu lañ daane woon ma waxoon la secret bu nekk ci nit ki lay jàngal bu waxee ba pare maanaam bu daanelee nga door a wax am na secret bu rëy bu ci nekk jaaroon na faa yow kero tey fi ñu war a commencé muy wala xadaayi naa ilaa adama min qablu fa nasiya wala naj wala najit loom asman yàlla saari da cee nettali ay yonent muy yonent yàlla aadama mi nga xam ne mooy abul basar maanaam mooy bàyyi mbindeef yëpp aadama nag ak yonent la boo xam ne moom maanaam wàccewu woon ci moom téere joxuñ ko woon téere waaye nag dañ am na ñu koy lim ci bindkat yi dañ koy boole ci yonent yi waaye mooy suñ maam aadama dañuy wax ne yonent bi njëkk a yoonal ci wàllu jox ko téere pour mu andi ko mooy yonent yàlla maanaam yoonal ak yonentam mooy yonent yàlla nooxaan pour muy jàngale charia ci nitam ña waaye aadama joxuñ ko woon loola waaye lu ci mën di am daal mooy abul basar di suñ maam aadama boo demee ci ulamaaw yi wax nañ ci lu bari ci ute yi ci am yooyu noonu ak niñ gisee ak yeneen tamam bu ko defee yàlla mu ne wala xadaayit naa dénk nañ ilaa aadama jëm ci aadama min xablu ci njëkk muy lekk garab ga yàlla dénkoon na ko ne ko garab gi wala taqrabaa si sajara fan na si yem mu fàtte ndénkaane la gis nga yonent yàlla aadama wax naa la ko yàlla def koo bind aadama mii ku jara taxaw la yonent yàlla aadama bis àjjuma la ko yàlla bind yonent bi moo ko jàngale mu ko bind si suuf min amaa in masnuunin ci maanaam ci ñetti xeetu suuf yi ca ban bu tooy baag ban buy keleng-keleng ci la ko yàlla bind waxaat na feneen ne min tiini laasibin ci ban buy taq mu ngi noonu ba koy bind dafa yónni malaaka yi ku mu yónni rek ci ulamaa yi niñ ko nettalee boo ñëwee ngantañ lu ne rus naa maanaam di andi koo xam ne yàlla dana ci bind loo xam ne dañ koy lakk mu yónni borom xam-xam yee ko nettali ci téere yi mu yónni malakul mawti ba mu ñëwee mu ngantañ lu wut yàlla mu andil ko suuf mu ne ko gannaaw yaa ma andil nag suuf si mu andil ko ñetti xeeti suuf yi ñu bind aadama tiinin laasubin ak min amaayin masnuunin mu ne ko kon nag wakkil naa la bakkan doomu aadama yi yàlla bind ko kon ci ban lañ ko bind ci loolu nag bisu àjjuma la bisu àjjuma la ko yàlla dugal aljana bisu àjjuma lañ ko génnee àjjana ci garab gi mu lekkoon bisu àjjuma la ko yàlla nangul maanaam tuubam ga mu ngi noonu kon ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale fii xuliqa aadama wa fii maata sallallahu alayhi yàlla bind ko ci àjjana mu nekk fa ak malaaka yàlla jël ko fa jox fa cër bu rëy mooy mu nekk kilifa malaaka yi te li ko ko waraloon wax naa la ko ci tafsir bee passé dafa am xam-xam aadama malaaka yi amul xam-xam ndax yàlla daf koo def kalifa dafa wax ne inni jaayilun fil ardi xalifa malaaka yi fiir ne attajalu fiha man yufsidu fiha lu yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bi amdika wa nuqaddisu lak ndax da ngay def ci suuf koo xam ne dafay yàq si suuf maanaam koo xam ne dafay tuur deret gis nga kon firange lu fi yàgg la jigéen ñi ñu ngi leen di tooñee firange waaye malaaka yi sax dañoo fiir waaye nag yàlla mbiram yëpp maanaam daf koo teg ci ay régal boo buggatee fal ay nit bul tëb rek jox nit ci cër exeme leen yàlla nekkaay kaay man yëg naa ne addina bi li ma fi war a jëmbat ci addina bi xam-xam rek moo ko war a yore kon xam-xam moo yore addina ci côté bu nekk nag moo xam xeeti xam-xam bu ne xam-xam ba addina sosoo ba léegi xam-xam moo yore addina léegi nag mu ne xaaral ma def exeme dama la ko tënkal xisa aadama bi malaaka yi niñ fooree nga xam ne duñ mooy yàlla mukk heure bu nekk ñu ngi sàbbal yàlla mu ngi noonu laa yaxsoon laa ma amaroon yëpp loolu maa yi moroon ba mu leen examee ci xam-xam aadama xam malaaka yi xamuñ bu ko defee mu ne aadama nag fal naa ko mu nekk seen njiit yow mi may déglu nekk ci entreprise wala loo loo mën a nekk wala ci état wala ci këru daara boo fay jël nit mu nekk njiit ci lu mu mën a doon ki fa ëpp xam-xam fal ko yaa ngi ci maanaam gouvernement koy fal ki gën a féete kaw na ëpp xam-xam yaa ngi ci kër am koy fal ci xale yi boo fay jiital kenn jiital fu ko ëpp xam-xam yaa ngi ci média ci rédaction ki ngay fal mu jiite kër ga na am xam-xam xam ku ko amul bu mu jiite dara ndax yàlla li mu mas a fal ci àddina yëpp ci xam-xam la ko fal yàlla nag fal aadama ci xam-xamam mu nekk fa ak malaaka yi bu ko defee nag aadama yàlla am lum ko tere ndax yàlla maanaam nim jox nit ñi yëpp ci ñaar rek la ko tënk ifal ak laa tafal saree yëpp loolu la defal ak bul def rek mu ne ko aadama nag lépp lu ne ci àjjana rek yaa ko moom gis nga sax neex naa misaal xam nga ñu ngi fii ci hôtel bi ci Fana maanaam garab yi fi nekk yëpp ñu ne ñu garab gu nekk bu leen neexee mango fi limon fi ci xeeti garab yi fi ne yëpp bu ko defee ñu ne ñu nag garab yëpp daal benn garab laa leen fi tere muy garab sàngam ci misaal rek comme ça ñu ne la banaana mu fi garabu pom mu fi garabu mango mu ngi fi garabu limon mu fi léegi nag ñu jël ci yooyu benn garab ne daal garab yi fi ne yëpp mango laa la wax ne bu ko fi lekk yi ci des yëpp yi ma la tuddalee mën nga ko lekk waaye mango moom bu ko laal ci misaal rek ndax ñu ngi ci hôtel loolu neex naa misaal ndax àjjana ay sardin la bu ko defee yonent yàlla Adama moom ak Awa yàlla ne leen bu leen lekk garab gi wala taqaraba asi sajara soxnaa mu ngi tuddoon Awa ndax awaa ci faaru càmmooy aadama lañ ko bind comme ni ko alquran waxee wa xalaqa minha zawjaha la alquran wax wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaan léegi nag bam ko bam ko bindee ci faaru yam moo tax ulama yi ñu ne góor faaru càmmooyam dafa manqué waaye bu nday joor bi dafa mag loolu moom lu neex a misaal góor gu mën a doon bu kontoon faaru nday jooram rek mooy ëpp faaru càmmooyam ndax fa lañ bind suñu maam awa mu léegi ñu ne ci aljana ci sarde ba yàlla na leen lii nii lii nii fruit bi bu leen ko laal yi ci des yëpp may nañ leen ko fekk iblis mu nga fa woon ba malaaka yi su jootalee aadama jox ko cër iblis dafa bañ yàlla génne ko danañ ñëw ci xisaam léegi yàlla génne ko nag léegi mu ñëw di dugg àjjana gis nga doomu aadama lum da lu ko dal yëpp iblis saytaane moo ko waral iblis ñëw ci bunt ba rek ci ulama yi liñ nettal li mu fassiroon yi fekk fa awa ñaare góor lu ko dal ci jabaram la ko jaare mu ne ko daal dafa am laaxe biir gi may jox sa jëkkër ñu ne iblis li fekk jaan la fekk ca bunt ba mu soppeeku ngelaw jaan wann ko li mu fassiroo yi nettali boo ko jaan dugalee ca biir mu dem ci awaa ne ko sa jëkkër ji li tax yàlla tere ko garab gi dafa bañ bu mu nekk buur wax ko ay wax yu bari dama ko bugg a laaxee biir bu ko defee nag awa dem ci jëkkëram gis nga nit ñu bari li leen di dal seen jëkkër ci lay jaare rawatina sax góor goo xam ne góor benn jabar la ndax aadama benn jabar la yore woon gis nga góor benn jabar yi natt yu bari moo leen di daal ndax ñaare sa benn jabar lu la wax rek loolu ngay gëm moo tax ku ku ku yore benn jabar bari na bu muccee ci ay problème yu bari ndax ñaare boo nekkee moom lu ne la lay wax moo tax sax ñaare ku amee benn jabar lu mu def rek dañuy wax ne jabaram moo ko wax ndax li muy takkoo moom heure bu nekk aadama benn jabar la yore woon wax na ko li Iblis wax léegi nag ñoom ñaar ñu dem lekk garab yàlla waxoon leen ne wala taqraba asi sajara fa takuna mina saalimi moo tax am na ñoo xam ne dugg nañ ci guuta gu seen benn jabar moo ko sax waxuma nag nag ku yore benn jabar rek dafay dafay dafay dafay dafay def lu baaxu déedéet wala lu mu dugg rek jabaram a ko wax da cee bari bëri na koo xam ne yore na benn jabar dugg na ci guuta maanaam ak loo xam ne du lu rafet ci jabaram moo ko digal gis nga aadama jabaram a ko digal lii nii di xew kon alquran wax na lu ne benn jabar ñu noonu kon li ci alquran wax mu ñu noonu mu ne wala kada naa ñun de kol maanaam dénk nañ ilaa aadama jëm ci aadama min qablu lu njëkk muy lekk garab gi fa nasiya mu fàtte ko de fàtte na ko te yàlla waxoon na ko wala taqraba asi sajara bu leen laal garab gi mukk yàlla mu ne wala najat fekkuñ loo ñeel ko asman muy dogu aadama mii du ko am dogu de moo tax bokkul ci ulu asmi mu ngi gis nga yàlla dafa am ñum tuddee ulaas mi yonent yàlla aadama bokku ci li tax bokku mooy lii li ko yàlla wax bu lekk garab gi mu lekk ko ba ko lekkee rek yàlla génne ko nag bu ko defee ñoom ñaar ñëpp seen yére yëpp naaw doomu aadama bu mu mën a doon bu ko yàlla teree dara mu def ko rek xamal ne aw maanaam solotul yére bu ko yëgee bu ko yëgee na xam ne moom yére moom summeeku na solotul yére gis nga yàlla bu la digalee defal lii defoo ko ni awra yëre yonent yàlla aadama yi naayoon maanaam ni yëre yonent sayyidatina awa ni yëre bi naayoon xamal ne bu la yàlla digalee dara te dafoo ko yow noonu nga summeekoo boo ko yëgee boo ko yëgul summeeku nga mu ni noonu seen yëre yëpp dafa naaw bu ko defee yàlla ne leen xusoo siinatukum mu ngi noonu yàlla wax ne qad anzalna yu libaasan yuwaari sawaatikum wa risan wa libaasa taqwa ci sourate alif laam miim saad ñu jël xobi garab gi di ko di ko daaxoo ndax amatuñ ñuy sol ba nit ñi di gis seen awra kon bakkaar a ngi noonu ku ko def rek ku def bàkkaar rek xamal ne boo ko yëgee boo ko yëgee yëgul solatoo yére kon yonent yàlla aadama ci tënk xisaam bi mu ngi noonu yàlla génnee ko nag aljana léegi nag muy muy indi xisa boo xam ne moo jiitu lool mooy iblis ma nga xam ne maanaam yàlla daf ko waxoon su jootal aadama mu bañ kon aadama mi ngi noonu mu ne fàttalekul uskur fàttalekul isqul naa bañ waxee lil malaayikati ñeel malaaka yëpp ne leen usjudoo sujootal leen li aadama ñeel aadama yàlla wax na malaaka yi ne na ngeen sujootal aadama lii nag moo jiitu ñuy njëkk ñuy génne aadama àjjana yàlla dafa jiital xissa bee teg ci lii ndax iblis iblis bañ bindee aadama ba pare rek yàlla xamal ko baadi la ko malaaka yi sujootal fa la iblis bañee iblis génn te li koy jax-jaxal fa waswasa lahu ma saytaani iblis lay nekk kon iblis génn na ba ñëwaat fa kon xissa bi ñuy wax bi njëkk wax moo ko njëkk usjudoo sujootal leen li aadama ñeel aadama fa sa jodoo ñu si li maanaam fa sa jodoo ñu si jot ñoom malaaka yëpp ilaa iblis a iblis dudu iblis mu bañ yàlla daf ne iblis dugal ko ci malaaka yi istisna la dafa am lu ñuy tuddee ci ci xam-xam mun xatix ak lu ñuy tuddee istisna mun fasil lii nii istisna mun xatix la istisna mun xatix ñu jàng na ko xam nañ ko maanaam ñu jàng grammaire mooy di di di di setti loo xam ne li ngay setti bokkut ci comme saa ci misaal nga ne nit ñëpp ñëw nañ lu dul xaj bi te xaj xam nga ne nit wala nit ñëm ñëw nañ lu dul fas yi léegi xam nga fas bokkut ci nit waaye am na fas woo xam ne nit ñi dañu dañoo miin kuy dem rek war ko dañoo miin jotaay nit ñi di ko war di ko fa yóbbaale moo tax ñu ne fasu diw yi ñëwut waaye nit ñëm ñëw nañ kon liñ dindi bokkut ci waaye lim taxaw moom la iblis nag du malaaka iblis jinne la li tax di malaaka mooy li la koy xamal mooy malaaka yàlla wax na ne laa yaxsuuna laa maa amaroo wa yafaluuna maa yumaroona maanaam malaaka du mooy yàlla ñaareel bi tegu ci yàlla wax na ne iblis dafa am day am doom ay yàlla wax na ne iblis dafay am doom kaana minal jinni fasaqa an amri rabbi afatataqisunahu wa zurriyatahu gannaaw dafay am doom rek malaaka moom laa yaquluna wala yasrabuuna duñ sëy mu ngi noonu ayab alquran te wax ne kaana minal jinni kon am na ñetti istidlaal ñetti dalil yoo xam ne danañu wan ne iblis du malaaka waaye jinne la woon jinne joo xam ne dafa génn topp iblis jaamu bi yàlla la woon boo xam ne bu baax la amut fooy dem ci suuf lu dul ne maanaam sebre nattu nga ko fa lu dul jaamu na fa yàlla moo tax nit commencement am dana rafet mu jëm ñaaw fu nekk la daan taxaw di jaamu yàlla gis nga rek ba yàlla baax gi baax yàlla yéegal ko yobu ko ci malaaka yi moo tax yàlla ne ilaa iblisa mu def istisna mun xatix mooy lim setti bokkut ci gis nga luñ setti ila ilaa dafay nasab moo tax fataa gi mu ngi noonu ca kaw ñu jàng lu mel ni alfiyatu ibnu ma wax borom bi taa faaltu wa atat wa yaa af ali wa noonu ex bi lan na fexlu yan bieli qaala muhammad wa ibnu malik ahmadu rabbi allahu xayru malik yu mel noonu dana ci wax lu bari ci istisna mun xati ak mun fasil kon iblis mu ngi noonu iblis bañ ne du sujootal aadama ndax moo ko gën ndax moom maanaam aadama ci ban lañ ko bind moom ñu bind ko ci safara boo demee ci ruuxul bayaan mu ngi mu ngi wax ne man mu ngi indi ay misaal yu bëri ni nga xam ne noonu la suuf gënee safara boo demee ci ruuxul bayan indi na ci ay taawilaat yu bëree bëree bëri dafay jël temps rek moo tax mu ne fa sajadoo sujud moo tax indi wuñ ko ilaa iblis li iblis aba mu bañ mu lank ne di sujootal aadama ndax mu ne moo ko gën kon bàkkaar bi njëkk mooy yàlla mooy maa gën mu ngi noonu kon bàkkaar yi cosaani bàkkaar yi ñu ngi nii ulamaa yi dañoo wax ne cosaani bàkkaar yi mooy rëy cosaani bàkkaar yi mooy lu mel ni xiir aadama xira tax mu lekk yeneen garab gi iblis itam rëy tax mu bañ na du sujjoot aadama kon yii mooy cosaanu bàckaar bokku na ci maanaam rëy bokk na ci itam ak xiir ak lu mel ni kiñaan kiñaan moo taxoon Haabil rey Xaabil boo boolee bàkkaar yëpp yi ñoo ko jur xiir moo tax nit di mooy maanaam njaalo am nga jabar di dem di moy keneen ko xiir la dafa xiir mu ngi noonu boo ko toppee ci yu bëri xiir moo tax nit di sàcc ndax li ngay sàcc lépp lu dugg sa loxo rek xamal ne boo xaaroon dina fa ñëw ndax yàlla ruum la di sa jabi dina ñëw balaa ngay dee xiir moo tax nit ñi di dugg ci ay diil yu bari li ngay tappale yëpp boo toogoon yàlla dana la ko jox kon mooy cosaani bàkkaar yi rëy itam mu ngi noonu dana sabab yoo xam ne yu bari la muy rey yàlla nag faqul naa ñu wax yaa aadama yow aadama mu dégluwaat ci aaya bu njëkk ba in haza naka kii adduwu noonu la la ka ñeel iblis mii di la génne àjjana sa noon la wali saw jika ak sa soxna de ñu déggee ci ne ku nekk sa noon rek sa noonu jabar ku nekk sa noonu jabar la tam sa noonu la ndax diggante ñaari way dencante nit mantu bëgg jabar bàyyi bàyyi jëkkër nit mantu jëkkër bëgg jëkkër itam bàyyi jabar ku noonoo jëkkër rek da nga jabar ku noonoo jabar danga nga noonoo jëkkër alquran ko moo tax mu ne yaa aadama yow aadama inna haasa naka iblis mi adduwun noonu la laka ñeel la wali saw juka ak sa jax soxna di awa noonu awa la de ndax moo fexe ba maanaam diq leen seen tiraanga gi yàlla mu ne bu ko defee falaa yoxra jukuma bu leen génn min na jannati ca ajana bu leen fexe mukk iblis nax leen ba génne leen ajana kon lii passé na génnee na ko ba pare waaye lii moo jiitu lale bu ko bu bu bu ngeen fa génnee dafa tas xaa sabab si dangeen sonnu sonn de ajana gii nu mu neexee jàmm rek ci ngeen di nekk ajana lu mel ni moom amut place boo xam ne boo fa nekkee da nga lekk ba suur da nga naan ba màndi da am ay soxna lépp loo bëgg rek yaa ngi boo bëgg a dawal wala kum fiyaa maa tasee anfusukum wala kum fiyaa maa tuddoon yàlla mun ne lépp lu sa bakkan bëgg rek ku bëgg war ci 4x4 da nga fa dugg ku bëgg war ay fas ku bëgg piscine ku bëgg lekk lekk goo bëgg rek mu fa li ni ko alquran waxee lépp lu sa xel daje rek wala kum fiyaa maa tasee anfusukum kon place bi ku la fay génne te yow doo liggéey dara amul dem duus amul tuur ndox amul ñandaxit amul tilim amul dara amul julli amul jàpp ajana daal ci jàmm rek ngay nekk loo bëgg rek yaa ngi ci ci ci ci noflaa rek amul jaamu yàlla amul dara kon ku la ko génne kañ dalay dalay sonal moo taxoon yàlla wax na ne leen falaa yaxrajukumaa bu mu leen génnee minal jannati ci ajana bu leen nangu mukk iblis mi génne leen ajana fa tasqaa maanaam sabab si ngeen texaadi fa tasqaa sabab si ngeen sonn ndax bu ngeen fa génnee ci coono rek ajana bu ngeen fa génnee da ngeen bay ajana bu ngeen fi génnee da ngeen góob ajana boo fa génnee da nga dëbb ñaare bi tegu ci xeeti liggéey yëpp coono yi yëpp génn gi ñu génn la ñi buñ géntoon na doo gis kuy def métier transport di safoor buñ géntoon na doo gis ku nekk ci géej gi subaa ngoon di ut bu buñ géntoon ajana doo gis koo xam ne maanaam mu ngi ci àll bi fu nekk di ambila pour ut lum dundee boo buñ géntoon na doo gis koo xam ne daggee na fii visa fay xaalis bu bari ay million dem bitim réew ne day uti alal bu demee lu ne mu daj ko di fanaan ci mbedd yi fu nekk mu fay fanaan lool yëpp natt bi saytaane maanaam nattuñu ba nax suñ maam aadama ba génne ko àjjana moo ñu ko teg ko noon yooyu yëpp da ngay gis ku ne bitim réew lu ne lay daj ci ci ci moodu mood yi wala koo xam ne bu xëyee ndakaaru lu mu joxe dépasse sax da koy të ñee ngi ci taxi ñee ngi ci ambilaay ñee ngi ci lu ne maanaam loo xam ne boo ko boo boo ko jaay ñee ngi ci soleil di jaay ci journal yi pour pour pour pour pour war ci am dara rek kon maanaam nattu boobu yëpp li ñu ko teg mooy génn gi ñu iblis ndax suñ maam aadama bi génn ñu ajana waaye nag benn bis aadama dafa taseeg Moussa ñuy xuloo yonent bi moo ko nettali mu ne ko lii yëpp yaa ñu ko teg coono bi yëpp ci àddina yaa ñu ko teg yow yaa fexe bañ génn àjjana ci bànneex rek lañ newoon konoon kenn du ñu wax dara maanaam naan dañ ñuy mbugal aadama ne ko noo may maanaam noo may waxee loo xam ne yàlla dogaloon na ko lu njëkk sama juddu nangami at yàlla moo waxoon ne danaa lekk garab bi boo demee ci sufiyanke yi mu tasawifoone yi wax nañ ci lu bari ñu mel ni imaamu saasili ak suyooti ñu ne aadama mi nga xam ne dafa génn aljana yàlla ba mu ñëwee ci addina addina boobu yàlla andi ñu ku mel ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa waroon a lekk garab ga ba mu jeex boo demee ci sufiyanke yi ñu ngi ciy wax lu bari ndax aadama bu ñëwtoon àjjana konoon julli du am aadama bu toon àddina bi tam konoon duñ xam koy ko Muhammad bu ci dara nekkutoon lu dul ne bu ñëwee àddina danañ xam jaamab yàlla bu tudd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam danañ xam chariatul islam danañ xam alquran loolu rek jar naa tax mu génn àjjana te loolu yëpp amutoon du am yàlla moo ko digaloon ci baatin tere ko ko ci zahir loolu nag sufiyanke yi danañ ko xam mu ngi noonu ñi nga xam ne dañuy fuglu yàlla bu ko defee mu ngi noon yàlla mu ne inna laka aji lakk la yàlla alaa tajoo doo xiif fiyaa ci ajana wala taxaraa doo rafle yàlla mu ne ko ajana gu neex gi nga xam ne boo fa nekkee doo xiif doo rafle laa tas moo doo ci ajana wala a doo keeñaak maanaam naaj du tàng maanaam doo doo mar naa la fa tàng waaye gis nga yàlla lu yéeme la dafa def muqaabala yoo xam ne ñun xamuñ ko woon ci muqaabala ndeke lii mooy muqaabala ndax nit ñi li ñuy gën a wax mooy xiif ak mar léeg-léeg da ngay dégg ñu ne diw xiiful marul loolu la nit ñu di wax di bu ko defee yàlla jël maanaam xiif lënkale ko ak rafle jël mar lënkale ko ak tàngaay yàlla mooy yéeme gis nga doomu aadama bu xiifee boo ko yëgee boo ko yëgul rek rafle na ku xiif rek rafetlu nit ki bu xiifee du mën a sol sax lu rafet ñaare nit bu xiifee sax yére du ko soxla xoolal ramadan weeru koor nit ñi da ngay gis ñu ne tekk ñaare bëccëg sax ko doo gis kuy noos ndax xiif gi moo tax dañuy rafle kon ku xiif rek rafle nga te itam xiif dafa nekk rafle baatin rafle baatin bi gën a mag mooy xiif nit ki bu bu soloolu rafet ànd ak ay nit te mu ngi xiif boo ko yëgee boo ko yëgu rafle na moo tax yàlla lënkale maanaam inna laka laa tajuu fiha wala taxra mu ne mu ne àjjana doo fa xiif doo fa rafle kon ku xiif boo ko yëgee boo ko yëgu rek rafle la moo tax nit ci lu mu mën a nekk rek bu dee mu ngi lekk ba suur rek bu ko xelaatal dara waaye nit koo xam ne mu ngi sol yére mu ngi dëkk fu baax waaye lekku xelaatal ko dara nit ki bu lekkee ba suur fu mu mën a nekk fu mu tëdd rek baax na am na ñoo xam ne seen biir bu bu feesee rek fu ñu mën a tëdd rek baax na même buñ solul yére sax du problème waaye ñàkk lekk moom mënuñ ko supporter ndax mooy maanaam mooy feebar yi baatin bi gën a mag mooy mooy ñàkk lekk ñaa kon jël na xiif raflek baatin la jël boole ko ak raflek saayir dajale ko laata sama moo fiyaa walaata ah mu jël itam mar boole ko ak tàngoor te liñ xamoon ñun nit ñi ci suñ xam-xam bu ñàkk solo bi suñ xam-xam bu néew bi mooy di boole xiif ak mar léegi nag mu boole fii mar maanaam ak ak ak muy tàngoor gis nga doomu aadama bu bu tàngoor rek du mar ñu ngi nii ci jamono sedd am na ñoo xam ne liñ daan naan ci liitaru ndox wàññeeku na ndax sedd bi moo tax kon nit pour mu mën a mar foog mu tàng ku tàngu rek doo mar moo tax alxuraan yi lu yéeme la moo tax ku ci ku ci xool benn aaya setantal ko te yow delloo ci yàlla dara du la ko delloo ci yàlla rek la mën a jógee moo tax yàlla mu ne afalaa yatadabbaruuna alquran walaw kaana min indi xayrillah la wajjudoo fi ixtilaafan kasiran da ngeen naa setantalul alquran lii bu jógee ko woon ci lu dul yàlla utee bu rëy dana ci nekk yàlla lënkale na mar ak naaj tat a mooy keñaak mooy comme waxtu yoor-yoor ni naaj wi di ñëwee wax naa la doomu aadama bu tàngut maanaam du mar koo gis ñu ne dafa mar rek tàngoor bi la seddaay baa ngi nii boo daan la naan ñaar ñaari litre wala ñetti litre dafay wàññee ko li ko waral mooy sedd bi moo tax kon moo tax yàlla lënkale maanaam mar ak tàngaay kon mu ngi noonu yàlla def na mu muqaabala loo xam ne moom moo mu muqaabala mu ñu noonu moo tax yàlla mu wax aadama ne ko inna lakk aji lak la ñeel la fiyaa a laa tajoo doo xiif fiyaa ci àjjana wala taxraa doo rafle wala tas moo doo mar fiyaa ci àjjana wala tas adoo keñaag de naaj du la fa tàng gis nga itam danañ ci xamee doomu aadama bu mu bëgg de doomu aadama kooku bu ko yore yi rek doomu aadama boo ko joxee mu lekk ba suur mu am lu muy sol lu baax ñaareel bi tegu ci bu bu bu naan jotee mu am lu mu naan mu ngi noonu bu bu am fu mu feexloo mooy wala war a dem ci keeñaak bi mooy am fu mu feexloo rek mu ngi ci jàmm waaye yii nii boo ko ci xañ rek nekk na ci musiba gis nga doomu aadama yii rek la bëgg place boo mën a nekk doo lekk waa ji amul lum sol amul lum naan amul fu mu maanaam feexloo rek dafay doyal ci place boobu kon ajana yii rek moo fa nekk ajana ku fa nekk doo xiif ajana ku fa nekk doo rafle ajana ku fa nekk doo mar naaj du la fa sonal te doomu aadama bu nekkee ci yii rek yaa ngi lekk ba suur yaa ngi maanaam sol lu baax yaa ngi naan nekk foo xam ne dañ koo climatisé rek sa addina neex na nit ñi yooyu rek lañ bëgg rawatina sax ñu sant siise ñoom ñoo ñoo gën a soxla yooyu kon mu ngi noonu ajjana mu ngi noonu bu ko defee lii la wax rek iblis ñëw nax ko ne ko génnal ndax iblis suñ noonu la buggut ñu nekk mukk ci bànneex gis nga itam sa noonu mu ngi noonu foo mën a liggéeyee entreprise boo mën a nekk rek sa noon bu xamee ne yaa ngi fay tedd rek dana ñëw jax-jaxal la dana fexe ba wax yàq ci yow wala mu wax yàq ci directeur yi ci ñi jiite pour yàq seen xel mi ci yow kon noon yi ba léegi ñu ngi wër Iblis mu ngi soppandiku ci nit ñi fu nit nekk rek ñu dugg fa yàqal la bu ñëwee rek kaay ma gis la kaay ma gis la di jaxase di jaxase ay nit ba yàqal la fi nga nekk kon mu ngi noonu Iblis ñu ngi dox ci kaw addina bi yàlla mu ne fa wasa wasa sa fa wasa wasa jax-jaxal illahi jëm ci aadama saytaani Iblis lu mu ko wax xaala mu ne ko yaa aadama e yow aadama ala ya adama e yow adama xalaa dullaka ndax du duma la maanaam du ma la tegtal ala sajarati xuldin ci garab ak bel maanaam duma la tegtal loo xam ne boo ko lekkee doo fi jóg mukk wa mulkan ak nguur laa yeb laa boobu deful ràpp de mu ne ko danaa la tegtal loo xam ne daal boo ko nekkee sa nguur gi du jeex mukk fa akalaa mu lekk aadama ak awa tas na yaay lisim la mu ngi noonu min haa ci garab ga fa badal feeñ lahuma ñeel leen ñoom ñaar sawaatuma maanaam seen seen awra ba bañ ko lekkee rek seen awra feeñ wax naa la ko heure boo defee bàkkaar rek mm, boo ko yëgee boo ko yëgut su nga ci zahir su nga ci baatin fa ba da feeñ lowumaa ñeel leen sawatu sawatumaa seen awra wa tafiqaa ñu xaraf yax sifaani ñuy dagg maanaam xale yi ma ci ci ñoom seen kaw ñoom ñaar min waraqi jannati ci xobi àjjana de bañ ko aadama ak awa dem lekk garab gi rek bañ ko lekkee rek garab gi nag dañ cee ute ban xeetu garab la aadama yëreem naaw lim tubayam naaw awa itam lu mu soloon yëpp naaw kon doomu aadama heure boo defee bàkkaar rek say awra yëpp mu ngi ci biti boo ko yëgee boo ko yëgul iblis daf leen a nax gis nga nit ki boo ko bëgg boo ko bëgg a nax rek demal ci lim bëgg ku nit ku ne ci lim bëgg rek lañ koy nax nit doomu aadama dafa bëgg dund moo tax mu ne ko danaa la wax garab goo xam ne boo ko lekkee doo dee ñaareel bi tegu ci nguur doomu aadama ñaar yooyu rek la bëgg fan wu gudd rek ak nguur moo tax koo kooy waxal rek daf lay wax ne ñaanal ma yàlla may ma fan wu gudd te te liggéey bii ma nekk yàlla dëgëral ko lool rek ndax mooy sa nguur doomu aadama ci nguur rek la gis nga président yi bëri bu ñu amee benn mandat ñaar sax doyul leen ñu bari ñu ngi yowtu am na ñoo xam ne ñaar lañ waxoon waaye dañuy dugg sax ba yowtu ñetteel bu ko defee mu ngi noonu kon nguur nit ñi duñ ci doyal danañ ci dem ba xabaabal gis nga 2011 li xewoon révolution boobu xewoon ci Afrique président yi bëri jógee fi ku mel ni Moubarak maanaam ak ak ak président Côte bi yu mel noonu la bugg nguur rek toog ci ne doo fa jógee ku mel ni la xew barki dem Gambie kon doomu aadama dafa bugg nguur bu ci nee ne du fa jogee mu ngi noon ñaareel ba tegu ci itam maanaam nguur goo xam ne du rapp ak itam fanu gudd yàlla mu ne yow du ahaduhum law yu amaru alfa sanatin kenn ci nit ñi dana mébét bu dundoon junne at waaye nag wama wo mu sox si biasabi moo tax nit bu gaañoo nit ñi buñ ñëwee sax da nit ki bu lay ñaanal da koy wax ne ko yàlla nga fi yàgg te wéer doomu aadama dafa bugg fanu gudd ak nguur moom la gën a ñu nax ko nit ñu bari ku nekk rek li nga bëgg ci lañ lay naxee gis nga boo fi bëggoon kurus am benn kurus goo xam ne bu simple la mooy la kaay kurus nangam la mën na la cee sax ba jaay ko cent mille wala deux cent mille te pourtant da la cee doomu aadama bu ne maanaam lii nattum rek ci la koy nax léeg-léeg ku bëgg téléphone portable dañ la ciy nax rek bi original la bi nangam la ñu jaay ko lu seer ku bëgg caméra itam mën nañ la cee nax ba jaay ko lu seer kon doomu aadama yi ba léegi iblis lim naxee woon aadama ñu ngi leen koy naxee ba léegi luñ bëgg rek ci lañ leen di nax mu ñu noonu maanaam fa akalaa lekk nañ minaa ca garab ga fa badal feeñ lawu maa ñeel leen ñoom ñaaw sawaatumaa seen awra maanaam watafiqaa ñu xaraf yax sifaani di daax alayhima seen kaw min waraqi jannati ci xobi ajana de seen awra naayo ñoom ñëpp ñu jël ay xob di ko teg seen kaw waasa bu ko defee waasa dégg ngeen aadama aadama rëbboo boromam fa xawaa mu juum ba lekk garab bi wala nga ne waasa maanaam juum na aadama aadama waasa aadama waasa juum na aadama aadama rabboo ci mbiram boromam de fa xawaa mu def ëral de wala waxaasa mooy na aadama aadama rabboo boromam fa xawaa juum na ba lekk garab ga waaye gannaaw gi nag su maj tabaa tànn na ko rabboo boromam yàlla tànn na ko jiyal ko ci moom de fa taaba mu nangu tuub alayhi waral aadama yàlla tànn na ko nangu tuub aaya bi bokk na ci aaya yuñ yuñ maanaam yiñ laaj seexu seexu tijaan dafa am yoo xam ne daf ko firi ci alquran ndax ki dee dafa mandi ci yàlla yu bëri daf koy mën a xam yàlla wax na ci alquran ne waman waman yattaqillaa yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haysu laa yahtasib wala aaya bale in tattaqoo laa yaj'al lakum furqaanan furqaan mooy leer goo xam ne yàlla daf koy def ci xolu nit ndax yàlla dafa wax ne su ma tabaa rëbboo fa taaba fa taaba yàlla dafa njëkk wax ne man yàlla tànn naa aadama ba pare ne mu tuub man nangul ko tuub nan la ko yàlla di tànnante tuubagul Seexu Tijaan mu ne a tawba maanaam leer la goo xam ne yàlla daf la koy wisal yàlla bu buggee ci yow nga tuub wicc na la ko bu yàgg bu la ko wiccee rek mu nekk sa xol bi nekk sa dënn bi tànn na la fekk yow goo ndax ndogal gi ak seegul waaye wicc na leer gi léegi nag wicc na ko leer ak tuub xam na ne aadama dina ko tuub mu tànn ko léegi bu ko defee nag aadama door tuub ci ci ci zaahir yi ñu door ko gis mooy baar yi mu doon wax rabbana salamna anfusuna way lam taxfir lana wa tarhamna dana koon ne minal xaasirin kon yàlla wicc na ko leer ak tuub ba pare ba mu ko wiccee ba pare mu xam ne aadama na tuub yàlla tànn ko bu ko defee nag mu door tuub noonu la ko ahmad ibnu muhammad at tijaani di xutbul maktum firee di seydi ahmad at tijaani bu ko defee mu ngi noonu kon aadama yàlla tànn na ko ba pare mu tuub ndax dafa gis ni mu tuubee nag gis na ne yàlla fi mu bind turam bi yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay bind ci yu bari mu tuub ci daraja yonent bi gis nga tuub bii bisu bisu ajuma lañ ko ko nangu yàlla nangul na ko tuub bisu àjjuma comme ni mu ko jàngalee ci hadis ba mu ngi noonu mu ne rabbana salamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunna minal xaasirin gis nga sax foofu dafay ixtiraaf moo tax bokk na ci maanaam nit bu defee bàkkaar reconnaître ne moo ko def rek reconnaître ko dem jéggalu rek yàlla jéggal ko kon aadama reconnaître na ne salam naa anfusuna tooñ naa sama bakkan gis nga noonu la tuubee wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunna minal xaasirin kon aadama tuub na yàlla jéggal ko Iblis nag yàlla namul ci moom texe moo tax tuubul kon yàlla génne na leen ajana aadama tuub na moo tax mun yàlla mu ne su maj tabaa topp taani ko rëbb boromam te booba sax waxagu tuub gi waaye sotti na ko leer tuub fa taaba nangul na tuub àllee ci moom aadama yàlla nangul na ko tuub waxa daa mu gindi ko maanaam mu jubal ko mu sax dàq di tuub waxa daa gindi na ko ba jox ko maanaam mu jubal nit ñi bu ko nag génneen léegi nag xaala yàlla ne ko arbita na ngeen wàcc yéen ñaar maanaam yéen ñaar na ngeen génne àjjana jëmmeen boole seen baxdakum lenn li baax di ñeel lenn adduwun noonu la na ngeen wàcc àjjana de yàlla génne aadama ak aw ñoom ñëpp ñu wàcc boo demee ci ulamaa yi ñu ngi tasee màkka ci arafa aadama wàcc maanaam awaa itam wàcc ñoom ñaar ñëpp ñu wàcc ci àddina bi bu ko defee mu ngi noonu am na ñu wax sax ne ind la am na ñu ne aadama dafay utee ci mu fassiroon yi ci place yi ñenn ñi ne aadama mu ngi wàccoon benn place ca ca ca màkkatal mukarama waaye daal ñoom ñaar ñëpp wàcc nañ ci suuf tax tafsir yi dafa bëri ay ay ay ay utee waaye ñoom ñëpp wàcc nañ jaan wàcc na yàlla mu ne lenn ci yéen noonu la gis nga iblis suñ noon la mu ngi noonu ñun tam noonam lañ jaan itam suñ noonu lañ ñun ñëpp ay noonu lañ ñun ñu newoon àjjana foofu ndax jaan moo wan iblis ba dugal ko àjjana jaan fu mu gis doomu aadama rek li muy xalaat matt matt ko rek mu dee lay xalaat doomu aadama itam fu mu gis jaan li muy xalaat rek mooy ray ko mu dee te loolu problème bi yëpp ci àjjana la jógee mooy ba mu ne iblis ba dugal ko àjjana iblis jax-jaxal aadama ba mu lekk garab gi moom ak awa moo tax ñun ñëpp ay noonu lañ iblis suñ noonu la ñun tam noonam lañ yàlla moo ne inna saytaana lakum aduwwan fattaxisuhu aduwwan ndax ñun moom pour mu baax le ñu topp ko la ñun tam pour ñu baax le ñu daaw ko jaan itam suñ noonu la mu ngi noon wax nañ ne mbindeef la moo xam ne maanaam dafa amoon ñeenti tànk mbindeef mu rafet la woon ba mu defee loolu nag lañ dagg tànkam di mbindeef moo xam ne itam doo am góom boo demee ci ñiy taarif rab yi ayawaan yi ñu ne jaan boo ko laalee ba mu am dagg-dagg rek kamal ne boo ko yëgee boo ko yëgu rek dana dee lu mu yàgg-yàgg boo ko xos yoon lu mu tuuti tuuti bu demee ba ci kanam itam dana dee wax nañ itam ne jaan balaa muy màtt nit maanaam nit ko yeew du màtt kuy nelaw mukk même bu la fekkoon ngay nelaw sax balaa am lay matt dana def benn mbir ba nga yëngatu ba mu wóor la ne yow yeewu nga moo xam nag sa bët yi gimmeeku na wala gimmeekuwut waaye kuy nelaw du ko matt mu nelaw la mu matt la rab la boo xam ne itam du am góom rab la boo xam ne boo demee ci téere wax nañ ne jaan maanaam fu mu fu mu jaar boo jëlee summeeku bi jaan dafa am summeeku loolu ñi xam àll bi summeeku boobu muy def boo ko jëlee ak bopp ba wala genn ga nga gas ba mu xóot nga suul ko ci kër ga wax nañ ne dootu fi ñëwaat lii boo demee ci lenn téere yi wax ci rab yi nettali nañ ko kon jaan mu ngi noonu jaan noonu nit la nit noonam la mu ngi noon bu ko defee itam iblis noonu nit la nit noonam la kon moo tax yàlla ne ñun ñëpp nañ wàcc arbita fii nag li alquran di wax aadama ak awa wax waaye noon gi nag dafay dellu ci ñu diggante ak iblis wala sax doomu aadama yi seen biir niñ nekkee ak noonante ndax nit ñi ñu bëri ñu ngi noonante ñaare ku ku ku ñu nekkee ci ay tolof rek boo boo fa jaaree tànk ni dafa jaar benn ñu wax ba mu nekk ci wala ñu jëf liggéey ba nga xam ne nekk dana nekk ci torof sa kon doomu aadama seen nooneel fële la jógee ko waaye lu njëkk loola ñoom ñëpp ci na xol yu rafet moo fa nekkoon waaye bañ wàccee ñun nit ñëpp ñu ci bari kenn bëggu sa morom ñee ngi liggéey nit ñi ñenn ñi ñu ngi njabar nit ñi ñenn ñi ñu ngi waxal nit ñi lu bon ñenn ñi di di yàq der nooneel bi bari na bari na loo bugg a lijjanti ñaare bu ko sa mbokk xamee rek du baax kon nooneel bi lu bari la moo tax yàlla ne xaala waxal eh, kaala mu ne yàlla mu ne arbita wàcci leen min haa ci àjjana jameen boole seen baadukum lenn li baadi ñeel leen addun noonu la yàlla ñu ne baadukum bi te ñaar lay waxat waaye mooy ndiggi doomi adama yi nga xam ne ñu ngi woon ci ndiggi aw ak lay waxat mooy doomu aadama yi nar a génn ci moom nar a nekk ab noonu yàlla mu ne fa imaa yaxti yéenukum dem dikkee na leen min ni ci man hudan sharia wala hudan alquran fa man tabiyaaku topp daa sama njub doomu aadama lay waxat de falaa yedil du sànq fi duniyaa ci addina falaa yedil du sànq kon laa wax walaa yes yasqaa du mu taxaa di de koo xam ne danaa leen andil alquran képp koo xam ne dëdd na ko nag maanaam ku ku topp rek doo sank doo texaa di mu ngi noonu maa ngi la ci doon wax ci gannaaw ci alquran ci ca tafsir bale passé yàlla mu fay maa yaxtu yéenakum dem di ne mi ni ci man huddan sama sariya fa man tabeeku topp wu daay sama alquran falaa yedil du sànq mukk ci addina walaa yasqaa du taxaa di de waaye nag waman aarat ku dëdd maanaam an zikrihi walis sama waaraate bi di alquran nangoo jëfee attey fay na loo aji lekk la ñeel ko may satan dund dankan bu maanaam bu bu xadde koo xam ne dafa dëddu alquran dund bu xad la gis nga dankatan duñ koy wax mukk te liñ doon xaar mooy mahi satan dankatan déedéet de mahi satan dankatan mu nekk naat waaye mukk amul de dankaa rek ngay wax mahi satan dankaa mu ngi noonu dafa tolloog faxlaa dañ koo tëgg maanaam maanaam faxlaa loolu lañ ko tëgg gis nga am na lu ñu tuddee dankaa ñu bàyyi fa yaabi fii nag ñu tëgg ko dankan mu tollook faalan fii faalan lay tëgg eh, lay nekk léeg-léeg nag dana jaadu ñu tëgg ko maanaam dankaa mu am yaabi mu ngi noonu waaye dankan fii faala lañ ko tëgg ñu tan tanwin ko moo tax ñu dindi kii bi li may wax nag ñi jàng sarfu danañ ko xam yàlla mu ne ku dëdd eh, ku dëddu alquran bii du nam dana xat ndax ñaare loo dem lu dul alquran rek làmbatu la gis nga constitution yi yëpp yi dañuy làmbatu léeg-léeg nga gis ñu def benn constitution boo xam ne kii kii ci lay ne président sangam ci lay ne ñu demaat ba ci kanam ñu toxal ko bu buñ demee ñu ne article sangam dañ koy toxal article sangam ñu yóbbu ko ci mm, ensemble ñu wate ko ñu wate mm, article sangam bu neexee député yi ñu wate ko bu leen naqade duñ ko wate gis nga ñu ngi soppi article bu ne ñu dugal ci léeg-léeg ñu wàññi ci léeg-léeg ñu soppi ci président bu ñëw sax bu ko neexee mu ne moom dafay def constitution boo xam ne bu boppam la waaye gis nga te loolu yëpp làmbatu la alquran rek mooy téere boo xam ne constitution la ci ñun dastoor la waaye amul làmbatu te du xewi mukk ba nga xam ne bis dana ñëw ñu a ah bi dee am na lu xew ci jamono dëppoowut ak moom nañ ko teg fële déedéet fu jamono toll rek téere bi maanaam gën a dëppoo ak jamono moo taxoon Mawlana Cheikh al Islam di wax ne bu dundaatoon dana firi alquran beneen façon firi ndax jamono bu nekk alquran mu ngi ànd ak jamono bu nekk rek moo tax ku ko dëdd rek sa dund xat da ngay làmbatu rek bu subaa nga ne lii bu subaa nga ne lii bu subaa doo taxaw boo ko téyee nag sa dund du xat ndax heure bu nekk dalay wan yoon woo xam ne wu leer la léeg-léeg ñu gis maanaam mbir boo xam ne dafa xew te fekk alquran waxoon na ko bu yàgg li ñuy def ni alquran waxoon na ko bis ku ku ku ku ku mënoon a wax ne ci jamono yonent bi presse dana am ba nit di wax addina di ko dégg te yàlla waxoon na ne wala qad wasalnaa lahumul qawla man yàlla danaa àggale wax ji kon gis nga mu maanaam walaqad wasalnaa lahumul qawla kon ci lii rek lay dugg ci li ñuy wax ni ñu ngi fii ndakaaru di wax addina bi lu bari di ñu dégg te te te te yàlla moo ko àggalil ci jumtukaay te waxoon na ci alquran ne walaqad wasalnaa lahumul qawla man yàlla may àggali waxi nit ñi ci ci ci ci façon bi ñu koy defee moo xam nag ci ci ci mar iya lay nekk maanaam ruxyatu la moo xam lu ñuy gis la wala mu nekk masmuiya moo xam lu ñuy dégg la wala moo xam maanaam taqririya mooy li ñuy li ñuy liir ci surno kon yàlla waxoon na lépp alquran baxul dara moo tax ku ko dëddu rek sa dundu xar koo gis dundam xar rek moom dafa dëddu alquran bugg a indi atte boppam wala mu nekk ci ay constitution yoo xam ne kum neex rek indi sa constitution bopp kum neex wax lu la neex moo tax yàlla mu ne fay na loo ku waman arat ku dëddu an sikkiri walis alquran yi yàlla ji fay na loo aji nekk la ñeel ko may satan dundu dankan bu xat dund bu xat lay nekk dëddu ko nangoo koo jëfee nangoo koo atte on la yokkum bi an sallah fa ulaykum kafirun mañ ñi li taxoon seen dundu neex seen dundu barke amuñoon sax alal waaye seen dundu neexoon na barke ne mooy dañoo jël alquran maanaam def ko seen kanam jël ko def ko seen constitution nawlawuñ kenn ku ko am alquran nawlawuñ kenn dul ko ànd ak alquran te addina bi sax ku fi falu alquran la fal yàlla mu ne wa nasruhu danañ ko dekkal yowmal qiyaamati bis penc maa mbir moom muy aji gumba de maanaam ku dëddu alquran yàlla dana la dekkal nga nga nga gumba mooy ku jëfewul attey nangoo jëfe dara lu alquran digal bu ko defee nag xaala nga ne rabbi yow sama borom li maa satti ni li tee nga dekkal ma li maa satti lu tax nga may dekkal ax maa may gunda ax maa may aji gumba waxar kunta te mbir moom nekkoon naa ci àddina basiran di gis de ba may dund dama doon gis du tax nga dekkal ma ma gumba yàlla ne ko hmm. xaala borom bi ne ko ka saalika ni ki noon atat ka bàyyi nga ayat naa suñu aay yow man li ma indi woon ci yow da nga koo bàyyi dëddu ko maanaam mel ni loolu dafa gumba mënoo koo xool kon nag kasaalika ni ko noonu atatka dikkal na la ayaati naa suñu alquran ji fan na si taxaa nga bàyyi ko de nga fàtte ko bañ na doo ko jëfee wa kasaalika comme noonu comme ni nga bàyyoon ci alquran al yow ma eh, tey tun saa def na la fàtte def na la bàyyi nga gumba de wa kasaalika comme noonu de niñ dafa waa ji dekkal ko mu gumba kii nangu te jàng alquran nangu koo jëfee maanaam na gis yi danañu fay man asrafa képp ku bokkaale yàlla wala mu yuminu ta gëmut bi ayaati rabbi maanaam ci ci ci alquraan yi yàlla ji yàlla ne wala asaabul aqirati mbugalam àllaaxira asadu moo gën a tar wa abqaa moo gën a des de alquraan ku ko dëddu bu yowmal qiyaame nangoo ko jàng maanaam nangoo ko jëfee booy dekki da ngay gumba kon mu ngi noon ñu bàyyi ci xel bari na koo xam ne jàng na alquraan nangootu koo nafar mu ngi noonu bàyyi ko rek mu nekk xijran maxjuran loolu musiba la moo tax yonentu ne alquraan alquran hujjatun laka aw alayk bu yowmal qiyaama dana wax ne kii daf ma daan jàng wala du ma jàng kon alquran comme ni ma ko waxee ci tafsir bale passé nañ góorgóorlu di ko nafat mag ñi bañoon na ba maanaam jëloon nañ seen kii di ko def ay xaaj waxoon naa la ko baqara bikrun xuquudun yunusa subhana wa suwaraaw yaqati ni xaaf baana dalee baqara maida yunusa ñëw maanaam subhana ñëw suwaraa ñëw yaqatiin muy wasaafaati boo boo fa jógee nga ñëw xaaf ñëw wàccee kaamil wala nga jël famiya bi sawiqa fatiya maida yunusa sayyidina ali noonu la daan def banu israila soxora wa safati xaaf bu ko defee itam nga wàcc si suuf kon ñu góorgóorlu ci ci tënk yooyu di ko jàng alxuraan wala lum gàtt-gàtt boo xëyee am na ñoo xam ne sax seen jàng sori sabbi lañ am am na ñoo xam ne am ma loo man ci alxuraan boo xëyee na ko jàng boo mën a jàng qul wallaahu baax na boo mën a jàng tabat baax na boo mën a jàng qul yaa kaafiruun baax na boo mën a jàng alam nasara di jullit loo xam ne mooy sa constitution te mooy wa innahu la sikrun laka wala qawmaka maanaam mooy sa tiraanga àddina ak nga xëy jàngoo ci dara musiba la alquran boo xëyee lum gàtt gàtt donte benn saar la benn aaya la na ko ci jàng waaye xëy am na ñoo xam ne jàngoo nañ boo rek ñu ne damaa fàtte nooy def ba fàtte boo ko bàyyee kañ mu bàyyi la nangoo cee nafar dara ñaaree li bàyyi bi nag mooy bañ ne doo ko jëfee koo xam ne nanguuta nafar alquran nanguuta jëfee attey bu yoomal xiyaamee buñ koy dekkal dafay gëmm alquran a ko wax kon ñu góorgóoru ci di nafar alquran di ko jàngaat di ko nafar heure bu nekk waaye ñu bari yàq nañ seen temps te ci te liñ dugal seen temps amul njëriñ temps bi ñu waroon a jàng alquran def nañ ko ci whatsapp def nañ ko ci imo def nañ ko ci facebook da ngay gis koo xam ne mën naa am ñaari waxtu daf ko ci facebook bi ñaari waxtu mu ngi ci whatsapp bi di yónnee ay message loolu boo ko jëloon jàng ko ñaari isib wala ñetti isib wala ñeenti isib am tiyaabo yàlla waaye doo ko def di tubaab bi créé moom ngay topp bàyyi li nga xam ne mooy sa tiraanga àddina ak mooy sa tiraanga àllaaxira kon suñ temps bi yëpp tubaab yi fexe nañ ba nax ñu ko te pourtant la li ñu defar ñoom jumtukaay la boo xam ne dañ ko doon def pour mën cee faj seen soxla yow nag nga bër ko yow nag nga bugg koo jël maanaam nga bugg a jël loo rek réseaux sociaux yi rek yow def ci sa dund bi am na koo xam ne dana toog ngay wax ak moom mu ne la umu ayiwul la mu ngi ci internet bi ñaari waxtu wala ñetti waxtu dana ko ci def loolu boo ko jëloon nag jàng ci xul wallaahu ahad nga xam ne yenent mu ne ku ci jàng fukk yàlla tabaxal la kër ci àjjana ñaar fukk ñaari étage ñett fanweer ñetti étage Omar ne ko ajana dana bëri kër mu ne ko yàllaa bëril diir boobu ngay nekk ci whatsapp bi doo jël sa course gi wala nga toog sax di jàng lixlaas fukki yoon wala nga jàng xul yaal kaafiroon yàlla fay faye tiyaabu alquran ñu bëri seen dund bi loolu moo ko xatal jël seen dund yëpp jox ko nasaraan yi bàyyi li yàlla wax kon mu ngi noonu yàlla mu ne wam naar ah, daan ku da daan sikkiri walis alquran fa inna lu aji lekk la ñeel dan kan bu wa nasruhu danañ ko pang maanaam pang wax naa la ko mooy ñu ñu ñu dugal la ci loo xam ne neexul la maanaam am nit ku topp sa gannaaw téye ay yar ak ay xiir mm, di di di di la panget pangete loolu mooy pang yowmal qiyaamati bis penc ax maa ngay aji gumba xaala mu ne rabbi yow sama borom li ma lu tax xasarta nii nga pang ma ax maa may aji gumba may gumba waxal kunta de nekkoon naa ba sëren du gis de yàlla ne xasaale xaala mu wax ne kasaaliku comme noonu att ka dikkal nañ la ayaat naa suñu alquran ji fa nasitaa ko da ngaa meloon ni ku gumba ci alquran nangoo ko liir nangoo ko jàng wa kasaalika comme noonu ni nga ko bàyyee woon al yawma tey tun saa def la bàyyi safara fàtte la wa kasaalika na ko noonu najji si danañu fay man asrafa képp ku bokkaale man asrafa képp koo xam ne dëdd na suñu alquran ji képp koo xam ne daf na jëfi caay-caay wala mi min toog gëmut bi ayaati rabbi ci kéemtaani boromam yàlla mu ne wala asaabul axirati mbugalam àllaaxira a des ndax àddina mbugal mi yàggut ndax da ngay dem bàyyi ko fi ah, asadu moo gën a métti de mbugalam àlaakara moo gën a métti ndax bu àddina mën naa am ku la dimbale te boobu kenn du la dimbale waa xaata mooy gën a des ndax amul emukaay yàlla mu ne yéen waa Màkka afalam yax di ndax biru loom ñeel leen kam bëri na ak la naa bañ àla guerre xableem xabloom lu leen jiitu minal xuróon tukkee ci ay maas yéen waa Màkka yàlla alag na ay maas yu bëri yéen nag maanaam est ce que loolu kanaa daf leen leeru kaay waxal leen ko yam soona ñooñ danañu dox fi masaakinim seen dëkkuwaay yéen a ngi jógee fi màkk di tukki raxal na si daay wasay wasay fi di gis seen dëkkuwaay te te ñooñ dañoo weddi yàlla alag leen yàlla mi defoon loolu mën na leen alag de kon na ngeen womatu inna fi saalika nekk na ci maanaam eh, kéem inna fi saalika nekk na ci alkaandigo wala inna fi saalika nekk na ci li ngeen di gis seen dëkkuwaay yooyu nga xam ne kenn nekkatu fa torox nañ laayatil kéemtaan li uli nuha ñeel borom xali seel li de wala yàlla mu ne wala wala kalimat bu taxu doon a baat sabakat boobu jiitu na mi rabbika ci sa sa borom la kaan dina nekk mbugal mi de maanaam li saa man di lu ñu waral léegi ci àddina de waaye nag wa ajjalun tudd na ko muy diir mustaman ba de bu ñu tudd de bu taxu doon nag yàlla li mu wax ne maanaam dina leen yéexe nit ñi dana leen yéexe ba pencem pencem yàlla doo leen fay seen ko noon mbugal mi dana wàcc ndax caay-caay yi xeet daan def yëpp yàlla di wàcce ci moom mbugal ñun ñu ngi koy def góor jigéen tey la fi gën a fees te nit yonent yàlla lool yi bañ ko defee yàlla dafa wàcce ci ñoom mbugal waaye yàlla moo waxoon dafa yéexee mbugal mi moo tax mu ne waa wa mu saman gis nga ko yàlla mu ne waa màkk kanaa dañoo dañoo gisut ñoom ñu ngi jógee màkk di tukki heure bu nekk di gis ñi xam ne dañoo mbaru woon fi yàlla mu jëg moom gis nañ Firawna fi mu tëdd mu nga fële ca Misra gis nañ dëkk bi mu nekkoon kon yàlla mën naa jaar ñoom foofu te loolu mu ne war nañ cee xalamee moo mooy moo mooy moo avalam yax diloo kama xal naa xabloo ñaare bi tegu ci itam li tax yàlla wàccewul nit ñi ci mbugal ñaar yàlla waxoon ne wa maa kaan laa liyu'aaziba wa anta fiihim wa maa kaan laa mu'aaziba wa hum yastaghfiruun yàlla mu ne du leen mbugal fekk yonentu mu ngi fi du leen mbugal itam maanaam fek ñu ngi jéggal kon mu ngi noon yàlla du wàcce ci ñun mbugal lu dul ne bis penc rek lay xaar mbugal ma door a ñëw kon loolu yàlla may na ko xeetu yonent bi yàlla mu ne ko fasbir na nga mu ñëw Seydina Muhammad alaa ma yaquuluuna lu ñu la wax de boobu ay xitaal yi ñëwagul wa sabbih na nga sabbal sa borom wa sabir na nga sabal bi am di rabbika sant sa borom de na nga sabal yàlla xabla tullooy sam si njëkk maanaam eh, jant bi di fenk yàlla andi na julli suba fii la ko yàlla tudd na nga sant sa borom njëkk jant bi di fenk mooy julli suba wa xabla xuróobiya ak njëkk soom mooy julli tàkkusaan yàlla tudd na ko wa min ana layli ak ci xaaju guddi mu ngi noonu fa sabir na nga sabal bu ko defee mooy julli gee ak julli timis waatraafi naari ak petit bëccëg ba mu ngi noonu mooy julli tàkkusaan de kon waxtu julli juróom yëpp yàlla indi nañ ci ci aaya bi kon mu ngi noon julli lu baax la boo xëyee balaa ngay def dara na nga dem julli suba nga njëkkee ko tusubaar bu jotee waxoon naa la ko takkusaan timis gee laallaka ndaxte la yow tarda ñu gërëm la de bu ko defee laallaka mu jox la tarda maanaam yool boo xam ne yàlla dina la ci gërëm de yàlla mu ngi wax yonent bi di ko tere ñeeta taaxaa nag li ci des bëriwut yàlla wax ne yonent bi ne ko walaa tamuddanna aynayka ilaa maa mataxnaa bi aswaajin minhum saatan ayat dunya li naftinahum fii wa risqu rabbika xayrun wa abqaa maanaam aaya bi lu ko wasal ku ñuy wax abu yaxla arrafi maanaam mu ne yonent bi sallallahu daf koy yónni ci benn waay ci yoxóor yi bu ko defee mu am lu mu ko jox ne ñu joxal ko ko léegi nag ba mu demee yonent bi am lu mu ko may kooku di tiitaru ci moom di ko wan daal alal ju bari di ko di ko wan ne ñoom dañoo am di xeeb ku fa ti bi yónni léegi yàlla ne ko walaata mu doon ay nekk ilaa maamat ni bi aswaaji ndax ñoom dañoo yoroon ay safi gëléem yu mag di ko rombe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yore alal ju bari yàlla ne ko nag lii bu mu la tiital aay bi ñeete lay tere maanaam ñeete baaxul julli wartu ñee kenn yonent bi mu ne ñaar rek moo tere moo moom la di war a ñeexee nit maanaam mooy nit koo xam ne dafa am alal di ko joxe ci yoonu yàlla ak koo xam ne yàlla daf koo may alquran mu koy jàng mu ngi noonu nga ne ah, man de bu ma bu ma yàlla joxoon li dinaa def lu kii def kon mu ngi kon moo tax yàlla wax yonent bi ne ko wala ta mu dana bul bul tàllal xëy ka sa ñaari bët ilaa ma ma tax naa jël luñ yobal bii ci ñoom aswaajan ay xeet li leen yàlla jox mi nuñ ci ñoom bu ko defee daal minhum loolu daal saharata ayaati maanaam folooru addina duniyaa bay aji jege li nafti noom ngir ñu natt leen fii ci moom de yaa def leen ko jox pour natt loolu lii du dara wa risqu rabbaka sa wërsëgu borom xayrun moo gën waaw xaam moo gën a tes yàlla mu ne sa wërsëgu borom moo gën moo gën a des wambur na nga digal bu ko defee nag aaya bi mu ngi noon li ñu mayoon ci waxtu jeex na buñ fi ñëwati wambur ahlaka bi salaati wastabir aleyha li des ci saar yu bëriwut ci suratu taaha waaye nag dafay am ay tafsilaan moo tax duñ ko mën a tënk mu jeex ci des ci waxtu yi kon ñeete aaya bi moo koy tere ci alquran maanaam nit ki dafa war a doyloo li ko yàlla jox waaye bu mu xool lim jox leneen lu dul ne ci jaamu yàlla bu dee nit ki dalaa raw ci julli wala di joxe alal na nga ko ñee ci côté boobu maanaam pour gën a góorgóorlu waaye mbiri àddina yi bu ko ci ñee mukk ndax day def day fere day tax nga weddi yàlla kon tafsir baa ngi noonu surtout taaha li ñu mayoon ci waxtu jeex na ñu ngi nuyu suñu caméraman Ibou Diouf ak soxna aw mi mu bu ko defee ñuy nuyu ñu nekk ci récit bi Adja Ngañ Siré ak madame gise ak Raji Maaw Cissé ñuy nuyu Khadim njaay suñu monteur bi di ña di leen ñaanal yàlla di nuyu borom kër gi Youssou Ndour di leen ndokkeel bu baax kon surtout taaxaa mu ngi noonu di ndokkeel xulafaaw yëpp sëñ Aboubacar si di nuyu sëñ Cheikh Ahmed tiijaan ñas ak imaam Cheikh Tidiane Aliou Cissé imaamul akbar di nuyu suñu sëriñ Cheikh Ousmane Aliou Cissé émission leeral surtout taaha yal na yàlla def ci ñun dégg ak topp def ko ci yéen allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim